lan bikum juróom ñaari xàttekat ya waa conseil constitutionnel tontu nañu njiiti réew mi Macky Sall mi leen laajoon lan ngeen xam ci dialogue national ba li ñu wax ngir ñu amal watey deux soins conseil constitutionnel fa ñoo tontu njiiti réew Macky na ko lañ la waxoon moom lañ lay waxaat fañ nekkoon jóguñu fa maanaam fa ngay amal élection yi watey balaa le 2 avril te le 2 avril su jotee yow sa mandat jeex na dootoo mën a nekk ti président bu Sénégal ñu ne ko démb la leen laaj tak ñu tontu ko mu jeex ba tax yéen kaay bi ne fi mu toll nii nag pale ba njiitëram Macky Sall moom la ñuy déglu lan la nar a wax ak lan la nar a def yéen kaay bi ne conseil constitutionnel kay fa xotti tareet la gaañ a déggoo woon ca seen dialogue national ba 2 juin maître Doudou Ndoye moom fa gàgganti njiitëram Macky Sall fa gàgganti tamit Ismaïla Madior Fall ak Sidiki Kaba jëm ci wàllu woote yi 2 juin beeg bañ a organiser élection yi avant le 2 avril maître Doudou Ndoye fa koo ñaawlu ma ngi ko waxee ca Vox lu jëm na faa yaakaar na ñëmu leen koo def bés bi yéen kaay ne maître Doudou Ndoye kay a wax fukki dëggam ak juróom ñaar ñaar te mooy bàyyi leen seen intérêt yi ngeen di ak calcul yi ngeen nekk ci wàllu politique te xool intérêt réew mi ca wen quatre heures kaay maître Doudou Ndoye fa mel jommi jaaxle ba tax mu ne réewum Sénégal man faa xamut fan la jëm ña nar a jëm ci assemblée nationale ni ki tey ci àllar bi mooy député ya fa ñoo fas yéene amal plénière maanaam fa ñuy càmbar loi amnistie njiit réew Macky Sall ba pare amal wote ya ngir adopté ko d'accord ca wala ñàkk caa d'accord libération moo ñu ko xamal yow seetal ca commission des lois démb député Pastef ya déet ci loi amnistie bi député PUR ya nag ak taxawu Khalifa Sall ñoom fa ñoo wax ne d'accorduñ ci loi bi te duñ ko wote député PDS ya ñoom fa ñoo xam le ne waa yeewi askan wi su fekkee duñ vote loi bi ñoom waa PDS yi tamit duñ ko vote maanaam ñoom daal waa yeewi askan wi déglu Samira bokk amnistie ne projet de loi bii fay salfaaña wàlluk àtte yoon le quotidien yéen a kaay na njiitëram Macky Sall loi amnistie fa cee wédde moom kenn compte moo ko bëgg ñu watal ko ko waaye sénégalais yépp d'accorduñ ci baxal ñoo xam ne fa ñoo rey ay xale taxal fi moo def ak yoon les si que yéen a kaay ne réew mi kay fi mu toll ni gis-gis yi fa ñoo wuute ci loi amnistie bi député Pastef yi ñoom fañ a sës fi mu ñoom fa ñoo wax ne su fekkente ne groupe parlementaire Yewwi Askan Wi fa ñoo bañ a wotee loi amnistie bi su boobaa loi bi fañ ko war a retirer génnee ko Thierno Bocoum ak Birahim Seck ñoom fa ñoo ñaawlu tekk tekkaaral gi député Pastef yi amal ci loi amnistie bi Khalifa Sall ne fa ñoo xamal déggoo goo xam ne gàcce la Walf Fadjri yéen seen député fa jaaxal ñu bari ah ñoo xam ne fañ doon tàngal loi bi du fi xamee kenn du ko wote ah léegi loi amnistie bi ñëw ñoom ñu ne fa maandu loolu da lañ def ca commission le mandat yéen a kaay ne Pastef seen yëf yi de fa Sonko mel ni ku leen di tontu ne faa bëgg yéen sénégalais ngeen xam leen man Ousmane Sonko sàkkuwuma ñu baxal ma loi amnistie déedéet te man Ousmane Sonko négocié ma dara fañ maa jaay doole lal seeni pexe ba dugal ma ci kaso gi ñoom ñooy lal a défendre loi amnistie bi texte bi ca teral yéen la ko waxe bugaan géy mel ni ku naan ko li ngay wax noonu tàngi cee seet yàlla loi amnistie bi baaxut ci wàllu yoon baaxut tamit ci juróom-ñett fukk ak juróom benn doomu aadama yoo xam ne fañ leen fee rey diggante mars 2021 ba léegi léegi ñooñu nag ña leen rey kenn du leen def dara amul enquête amul teg ay daam ma ngi ko waxee ci l'évidence yéen a kaay bés bi yéen a kaay ne docteur Abdourahmane Diouf bu awale moom it fa ñaawlu loi amnistie bi fa wax ne trahison ñu ngi leen di xool voté loo xam ne baaxut ci sa askan baaxut ci réew mi benn député warta xool lu neex partem ba tax mu di ko def ndax njiitëram Macky Sall jéggale gi mu wax la bëgg a ànd ci réew mi ndax jàmm am ci réew mi yooyu lii moom bokkut ci ndax kii fa defiyee fi mu toll justice wàllug yoon am nañu fi rey ay nit am nañu fi taxal am nañu fi def lu garaaw waaye kenn du leen jàpp kenn du leen àttee est-ce que loolu yoon la suñ ko bàyyee mu jàll ëllëg ku fi nekk président bu Sénégal bu la neexee nga def lu la neex lu bon lu la neex yaag ña nga voté tey loi bii na la wóor ne ñi fi dee woon yépp ci ñaxtu yi fag leen a rayaat l'observateur ne ñi nga xam ne fa ñoo duggoon ca biisu yaraax ba mooy bi ñu fi taaloon ba ñu fa dee nee nañ ñoom d'accorduñ ci loi amnistie bi fa ñoo war a xam ñi taxal bis ba teg leen ay daan yéen kaay bi na gaa yi kay fa ñoo nar a jaar ci kaw ay niw ngir seetal ñoo xam ne fa ñoo def ñaawtiif te loolu fa garaaw le réveil yéen kaay ne njabootu ñi nga xam ne nag fa ñoo rey seeni doom ci ñaxtu yi fi amoon ñoom it fa ñoo wax ne d'accorduñ ci loi amnistie bi te fa ñoo fas yéen amal doxub ñaxtu samedi bi di ñëw 9 mars ngir ñaawlu li ni mel waa mouvement FRAPP ñoom it fa ñoo wax ne d'accorduñ ci amnistie bi réew mi yéen a kaay ne loi amnistie njiitu réew bii ñi ci d'accordut fa ñoo bëri laa wax la dépêche yéen a kaay na ko am na ñoo xam ne sax Macky lañ faral maanaam benn bokk yaakaar lañ bokk te ñoom fa ñoo wax ne d'accorduñ ci amnistie bi bokk na ci Mamour Cissé député Pastef nag banque bañ banque seen loxo fa tee xel leer la neen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne maître Moussa Diop bàyyi nañ ko mu génn kaso moo fi waxoon contrat jamaa bàyyi nañ ko ko gars yi dóor de la mu ñu xamal moom info a kaay butéelu gaz yi ñuy toggee fa manqué Sénégal lu ji njaaga total mooy njaag mu toll nii règle yi nu leen neex la ñuy def bés bi yéene kaay moom fa ñoo xamal ne soxna yu bëri fa ñuy ñaan baat tas ca seen sëy ya fa ñoo sonn lool ayow fa ngay gis soxna soo xam ne fa xam jëkkër jëkkër ja xemut ca jabaram rek de fay wër topp xale jigéen yi rek ba pare nag jàpp jabaram di mbuqi di dóor ak a fitnaal moo tax ñu ne fañoo sonn tax ñu ñaan baat l'observateur moom fañoo xamal na fa xam benn waay boo xam ne fa sol yëre sandarma ne moom sandarma la fekk waxu dëgg fay tappale di jàpp oto yi rek di encaissé léegi mu gis benn taxi bu gaare mu dem rek ngir contrôler ko rek fekk taximan ba mi ngi ci kaw xale bu jigéen ne la amul sax fukki at ak juróom-ñett bëgg ko tëddee rek mu yuuxu taximaan na ko yow looy def ni dàqee ko taximaan ba daw waa ji dëpp ñëw fekk xale bu jigéen bi di jooy jaaxle na ko jërëjëf ndax soo ñëwutoon sama àdduna fa nar a yàqu sama naroon a violé faux gendarme ba na ko andi sa loxo yi mu jox ko loxo yi mu takk ko ci gannaaw ba mu dëgër rek puus xale bu jigéen ba mu tëdd mu forcé ko daal di koy violé ay ay yow yaa gën a bon taximaan bi di libération ne faa leen di wax koo xam ne moom sandarma carrément la naam la sant LGI lay liggéeyee ma nga fekk baax Thiès moom xam nga nu def fa jël fetal gi ñu ko jox ngir mu koy liggéeyee mu teg ko ca boppam rek tiire boppam na xëlës daal di daanu faatu ñàkk ba kanam allah laata muy xaru nag fa bind ab bataaxal ay jege ñaaleem na leen man daal faa nekk ci ay jafe-jafe jaaxle ndax faa xam ay bor yu baree bari bari te bor yooyu nag xam ngeen lan moom ma ko yóbbee faa doon def ay pari en ligne maanaam carte gi ñuy def ci téléphone yi moo xam pari foot la ak yeneen yu mel ni moom waa ma ne cay lislaam mooy diina ju ba bam ñuy aaye carte ne baaxut xam ngeen lu taxam lii bokk na ci xamee ay bor yoo mënta fay sàcc dem carte ko te ci garaaw moo xam paris foot la wala yeneen yi mel soo ko xasee tàmm fa nga koy bëgga bàyyi waaye doo ko mën a bàyyi fay mel ni dorog ci yow